xalila timi yo timi aye timi yo xalila aha timi yo xalila timi yo xalila timi yo yayi timi yo xalila Euh, ñu gis si que diggante na Fallou Fall ak ki nga xam mooy promoteur yi rawatina ak lamb ji maam diggante bu sincère ba tax saison bu ci nekk macha allah ñu gis na Fallou Fall jagleel ko bés. lamb ji nag ah, dama cee maanaam seey ci biir ba jeex maanaam samay doom ñoo fi ne samay waa ko sumay ba rawatina presse bi nga xam ne tey moo moo xewle tey ma bokk ci sponsor am muy sama rakk di sama xarit di sama lépp moom maag moom démb la woon ba tey ñëw lamb ji nag li ma si dugal mooy cas rek laa daan def ku nekk xam ne ni man Serigne laa damay ñaan waaye dama doon dimbali ay mbër di leen ñaanal di leen jàppale di leen dimbali seen dund seen entraînement di leen fayal saal ma dem nag ba gis coono yi ñuy dund ma dugg ci di leen jàppale di dem ci promoteur yi ku mel ni sëñ Modou Ñaan waxtaan ak moom mu may tëggal xale yi noonu laa demee nag ba nekk ci sponsor moo tax nit booy def lu baax rek lu baax toujours dala cay fekk loolu moo ma booleeg làmb ma teew si tey nag mu tuddee sama rakk sama xol sedd ci loolu ma kontaan trop nag teew fi teew fi tey pour sama rakk teew fi tamit en tant que te nag maa ngi ñaan yàlla toujours muy law di wéy ndax man promoteur yeeg mbër yeeg ñëpp maay seen yaay maay seen xarit man ñëpp laa fi barke seen Fall Béba Mari Niang seere na la ba tax bi ci droite bi Béba Mari Niang Mbaye Semp daje nañu daje nañu laa ilaaha illallaah Béba Mari Niang ngi dóor Mbaye Semp génnaat na Béba dafa mel ni il est présent ci bagarre bi laa ilaaha illallaah ah <laughs> laa dafa mel ni Mbaye Semp xeex bi lay éviter waaye Béba Mari Niang dafa mën a xeex. Bébé Malick Niang Mbaye Sempi Bébé Malick Niang Mbaye Sempi Bébé Malick Niang Mbaye Sempi dara amagul jeex na laa ilaaha illallah yéehée tey ñu gis la tey nga ñëw gunge sa frère Mbaye Guèye Junior waaw li ma war la li ma war laa rafet. est-ce que ak sa maanaam sa bésu ni mu jege nii nii gisoon na nga Sa Thiès waroon na mën a gënal la lu ko euh, di ñëw di nuyu ñu mbéy mi. ndamu junior moo ma gënal ndamu Sa Thiès waaw lii li ma war la rek mënu ma ko fay lii laa mën am ci moom waaw di ko ñaan yàlla may ko ndam. tey Mbaye Gueye gëm ngeen ni que dafa war a am victoire forcément ndax carrière moom moo ko laaj est-ce que yéen ñi ànd moom tey gunge ko est-ce que tenir ngeen loolu en considération. waaw may wax lamb moom nii la ko yàlla nattoo la sax mais nii la ko yàlla bëggee nii lay amee dañ koy ñaanal yàlla may ko ndab parce que mënoon naa gën a métti mais lii daal ñu ci sant baax préparé nañ ko ñu ko war a préparé mel na lu mu a mel suñu xel dal na nag yàlla rek ci des di koy ñaanal may ko ndab Sa Thiès ak fu ci digganteem ak naas non pour l'instant fi si ñor toll ma gën a kaa sa ñamal ma ci nag xam nga Sénégal ñun moom mooy wax loolu la waaw dañ ko waajal rek ñaan Fass ragal naa ne bu ñu siggee rek mbir de Boy Baldé Omar Seras dara amagul Boy Baldé Omar Seras ñu ngi damay day loxo ñu ngi damay day loxo waaye Boy Baldé ko dóor rek Boy Baldé koy jéem a lijjanti Boy Baldé koy jéem a lijjanti Boy Baldé Omar Seras laa ilaa ñu ngi xeex xeexum kaw ñu ngi xeex waaye booy Baldé ngi ne tekk rek bëgg a liggéey ci xale bi booy Baldé Omar Seras ndeysaan jaaraama PAB Events jaaraama soxna bu subaa dañu ànd ak yéen tamit ñëwaat fii Manga production di tëgg diggante Nandi Fall le Caïman di Waalo bu Grand Yoff ak ki nga xamante ni que moom mooy Santa Ñing nii la ñu koy dundee ak yéen fu waay mën a nekk ci àdduna bi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu len ay Sénégal wax lu tuuti job lu bari mooy suñu devise wax lu tuuti jom lu bari Boy Baldé Modou Seras Boy Baldé Modou Seras da nga ñeente bi yàgg na dangal naa ne ku sigg def erreur ci ñoom ñaar Kande ku sigg rek def erreur ci ñoom ñaar ku njëkk sigg def erreur Boy Baldé Modou Seras Boy Baldé Modou Seras dara amagul de <laughs> dara amagul ndaysaan déggal dulu sekk borom Boy Baldé daan na Omar Seras Boy Baldé daan na Omar Seras Boy Baldé daan na Omar Seras beaucoup. baax sàccoo fenoo te nga sa làmmeñ sa tànku guddul àndoo kenn di gërëmante tàggooy xarabante mboor jàmm dal ngay andooti jaksonooy eey eh, kuy dëndu baax ba ko dégg loolu waaw moom nag sama père la sama père la te daf may yëngal dafa may yëngal xam nga àdduna lii rek la am waxante lu baax dara lu bon jaru ko fi parce que soo xoolee góor gi rek war a doyal ci àdduna ci lu bari waaw moo tax buur du doon ne du leen ne sant Paco nag Sénégal ngi lay xaar émission bu am solo ah, des na yaa ko neex <laughs> yéen moom dama leen yàkkamte parce que foog ñu leeral lu bëri ñëw leen seet si leen ma jam tey nga am adversaire boo xam ni ku ne xam ne ak mën a bëreem ak xarañam tey jam jamit ndaanaan la tey jam la la indi tey waaw sant yàlla rek jul ci yoonte bi waaw di gërëm suñu ñaari waajur tey rek tey te ko ci yoon bañ a def benn erreur parce que erreur waratuma erreur waratuma ndax li ma tax ci ginnaaw moo bari xool xool bi ñëpp man la erreur waratuma waaye nag maa ngi. dafa war a dem. yàgg na. combat yi du samay combat. waaye ki ngay bëree mbapat kat la mais xam nañu li ci ëpp ci xeex bi la koy miser. sëñ Fallou ci kàll yi kaw rawati war a daje ak jam téere ku ne xam ne ni Mbaye Gueye xaar bu yàgg na te bay gay def na exploit ci lamb tey est-ce que gisoon ni que Mbaye Gueye pas droit à l'erreur. waaw waaw waaw dañuy sant yàlla bu baax a baax. am nañ tardement la am tuuti waaye yàlla moo ko bindee woon noonu quoi damay ñaanal jam téeri rek yàlla may man tam ci kawam ndax tamit dama koy sant ko gërëm ndax bu doon woon moom damay année blanche ndax ñooy maye ndax xaalis waaw tey mbéggee lu mu indi tey waaw tey laa muñu bu ma duggee bi si bi bu laajee xeex ma xeex bu laajee taxaw bëre ma bëre loolu laa indi est-ce que mbéggee maanaam tenir na en considération xam ne tey dafa war a am victoire forcément waaw tey incha allahu rabi am naa yaakaar am naa yaakaar ne incha rabi li yàlla mayal fekk nangu ko incha allah na am victoire bu am ndam bu gaaw ci kawam. mais dañu gis Sa Thiès say sa sama rax moom du làmb boole wuñ sama rax la Sa Thiès sama rax la làmb boole pourtant mu ngi nekk si combat boo xam ne weer si des mu ñëw làmb moom sama rax ak kooku Pape baat leer na Mbaye Gueye Junior Diam Terry ñu ngi lewto Diam Terry gi jëm accéléré daje nañu ah bagaar dina am xaax dina am xeex dina am Mbaye Gueye Junior jam teeri ndax Mbaye Gueye Junior xeex bu may avantage ndax moo gën a gudd ay cër jam teeri Mbaye Gueye ñu ngi xeex jam teeri Mbaye Gueye ñu ngi xeex jam teeri Mbaye Gueye ñu ngi xeex ñu ngi tax ñu ngi xeex jàppante nañ Mbaye Gueye jam teeri Mbaye Gueye Junior jam teeri mënu too sotti Mbaye Gueye Mbaye Gueye laay laay laay mënu too sotti Mbaye Gueye mënu too sotti Mbaye Gueye dafa diis jam teeri Mbaye Gueye <laughs> Mbaye Gueye junior jam teeri ndaje na jeex na jeex na jeex na jam teeri ngi rasu jam teeri ngi rasu ah ñaari xale yaa ngi bëre jam teeri Mbaye Gueye junior jam teeri Mbaye Gueye junior jam am Mbaye Gueye junior jam teeri ku ci nekk yaa ngi tee sa kenn morom ku ci nekk yaa ngi dee ci ci sa ngemu morom sotti na sotteegul attention Diam Terry Mbaye Gueye Junior Diam Terry Mbaye Gueye Junior ku ci nekk ci ñoom ñaar yaa ngi déglu sa morom yelloo suwaat nañu bëre bi ne tekk ñoom ñaar waaye ku jeg am nga ngem waaye Mbaye Gueye moo gën a baax fi mu jàpp ndax am na ñaari loxo Baye Gaye Junior Diam Terry Diam Terry Baye Gaye Junior dara amagul dara amagul attention dara gaaw barke Rasulullah la ma ngi ñoo ko moom ça nous appartient ndeysaan Mbaye Gueye Junior Diam Terry Diam Terry lu mu bëgg Mbaye Gueye attention Diam Terry li <laughs> takk ba takk ba waaye Diam Terry ni muy jàppee rasu ngay xam ne kaamil la Diam Terry Mbaye Gueye Diam Terry Mbaye Gueye Junior dara amagul ndeysaan Nabi Fallou Fall mbege joo jëm teri mbege joo jëm teri mbege joo jëm teri attention laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ñoom ñaar ñëpp rëpp nañu génn saaku yi laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ñaari xale yi ngi bëre ñaari xale yi ngi bëre ñaari xale yi ngi bëre laa ilaaha illallaah mbege joo attention mbege attention laa ilaaha illallaah jëm teri jànn jëm teri da koo bi tër ñi koo tegal 16 Diam Terry da koo tegal 16 ñaar ñaari xale yi bëri na ci jom gis nga bëri nañu bëri rëpp génn saako yi dellu si waat ci géew bi dem der di lamb mbéykee si di lamb dem der di lamb mbéykee si di lamb ñu àndaat dem ci saako yi ba nañ dellu si waatee ci géew bi noonu la koy xam ne mooy dem der di tegalee 16 mu daanu dama wax ni PAB events lii la ñu indil presse lii la ñu indil lamb ngi lii la ñu moom xamuñu football xamuñu basket xamuñu handball lamb la ñu doon la suñu maam ba ba tey jii dama wax ni Sénégal ñun ak yéen fu waay mën a nekk ci àddunay lamb manu lamb waaye suba ñu ngi ànd ak yéen dellusiwaat fii Manga Production indi ñu fi ci diggante le Caïman du Waalo Ndandi Fall ak ki nga xamante ni que mooy Santa Ñing ñun ak yéen ci Sénégal amba en arrière ñoo ko ñoo ko sañ fi lay xewee sañu da feneen